population bi yëpp ànd nañoo ak yar ànd nañoo ak teggin ndax bi ñu jëkkee ñëw ñu fronté ak gendarmerie ñu dem ba loolu am sous préfet dafa def benn déclaration benn arrêté pour maanaam site bi maanaam ñu lépp fi lu si activité yi ñu arrêté ko léegi bu ñuy dellusee ñu nekk plus de ay centaine de gendarmerie de ànd ak waa DSCOS bi ñuy dikkee tam xale yi toujours xale yi xelam lay wee xolam lay we may mag xelam lay wee ndax lu toll ni gendarmerie nga xam ne bii moo la war a couvrir ci lépp boo jógee ba nga xam ne bii yaa ngi dem bay fronté ak moom mag ña du leen am lu neex waaye li waral loolu suñu sooy bu sekk bi nga xam ne bii dañoo fekk ci suñu moomeel maanaam suñuy maam suñuy baay ba ñu nañ ko héritier fi mu toll mu wax ne lii moom moo ko moom fekk ñu ci moomeel te fekk fu moomeel bu ñu fekk lépp loo xam ne lu investissement ñu ngi ko ciy def bu dee mbéy la bu dee leneen lépp ñu ngi koy def ci biir loolu la mu ne moo moom comme moom moom tey fi mu nekk demuñu ci yoon ba ñu tracé ba yoon jox ko yoon damaa foog ne li muy def doole la li koy dooleel nag may nam suñu kilifa yi ci suñu kanam ndax bu fekkee ne bii dañoo daa ñëw sous préfet dafa arrêté kon léegi ñoom bu fekkee ne bii ñëw na buy ñëw mënut a jaar ci préfet ak sous préfet kon ñoo ko ubbilaat yoon wi ñun nag fa ñu nekkoon joguñu fi mais am wane bi yar ak teggin moo tax bu ñuy delsee andi euh, permis bi ñu commencé de maase la tool yi li fi nekkoon lépp ñu koy ñu koy dindi di maase le terrain bi dama ne leen ñeen ñëpp dal ndax yoon euh, pays bi nekk yoon la léegi dafa am kilifa yoo xam ne ñu ngi wax ñoom te boo demee ba jox kàddu sa kilifa mooy wax pour maanaam lu jëm ci négociation da koy diglu moo tax fii maanaam wax xale yëpp arrêté mag ñëpp arrêté te xale yi dinaa leen sant leen gërëm ndax dañu wéy ci ndigal mag ñi loolu bu fekkee am na suñu sooy fekk bi nga xam ne bii dañ koo gëstu mu bokk ci ay kilifa ñun ba ñu jaaxlee ci Ablaye Wade ci maamam lañ dem Sëñ Bara Mbacké ban ko jooytoo dañ ñoo defal ñaan Ablaye Wade lu mu mujjee defal ñu defal ay tiitar village mu defal ko tiitar defal ñu ay décret décret boobu mu war ñu ko firni léegi bu fekkee dana dem ba xam ne bii Macky Sall moo fi nekk ak nguuram loolee bu fekkee bi dañ ko appelé jàmm rek mooy am comme wu wuñu ko nag fi mu nekk libre kii mu dikk di jaay doole te doole bi mu jaay ñoo ko ko may moo tax ñun dañ naan teg diglu mag ñi ba xam fu ñu mujj mais fa ñu mujj mooy lii bu ñu doon rey par benn benn di ñu tëj par benn benn mënuñu koo bàyyi incha allah nu koo bàyyi waaw. li wolof di wax nag mooy xelu nga ndéef gëm na waaye fayul te dama wax ne ma dama sama départ wax dama ne moom ku baax la loolu lu ma wér la ndax ku nekk suñu baar bàkk mooy sama am kooku tegtal bu baax nga am. waaye exemple bi mooy ko joxe dama koy joxe ci guy guy léppam njariñ la doom boobu njariñ la waaye guur day guy day juróom xetax guy day juróom xetax kon lii nga xam ne bi am na suñuy wax du ci bari liñ ci war a wax wax nañ ko fu ñu war a yóbbu kay yóbbu nañ ko fa ñu ngi déglu kilifa yi ba xam fu ñuy mujj ak ñoom ci li nga xam ne moom lañ bëgg ci maanaam ñu waxtaan mhm. bu loolu paree nag comme yoon am na ci dëkk bi nan lu ci yoon may dañ ko jël. maa ngi fi tuxu si depuis deux mille deux mille deux mille bi ma ñëwee sama jëkkër moo fi tënd kër ma nekk fi ma nag moom may daan sama doole di jaay ndékki di dajale sama xaalis jël samay bien yëpp def ko jëndee ko kër bi ma ko jëndee kër ma commencé di tabax tabax naa ba kuule dese ma ma xëy xëy rek. ñu toj ko si zéro kenn joxu la kenn kenn waxu la dara kenn tàggu la kenn kenn tàggu la kenn waxu dara man nag Macky Sall laay waxal ñun bañuñu ko tey bañuñu ko suba nu ñu dimbale ngir yàlla ak yonent bi ak jëmmi sëñ Touba mu geesuñu xam ne ay néew di doole lañu ay yaay lañu ay mag lañu ay ay maam lañ ñoo fi nekk ñu fii ay jig parce que ay jigéen doo nga fi nekk yi daan doole dina jële seen dërëm ak seen Dakar man ba may jënd sama kër gi sama kondaane la sotti par 500 ki ma doon jaay defe na ma danga ma yeb parce que lii naka nga koy kiiwee par 500 par 1000 francs laa dajale ba mu mat ma fay ko. Macky Sall maa ngi koy ñaan ngir yàlla ak yonent bi jëm sëñ Touba Mbacke nañ dimbali sarax ñu geesu ñu yërëm ñu sonn nañu fii góor sonn na jigéen sonn na mag sonn nga xale yi sonn nañu bërki dem ba bu ñu génnee fii ñëw di daanelaat lii àggale suñu kër yi suñu xale yi yeeg suñu doom yi ñëpp a génn taxaw ba dëkkër suñu chef de village ni leen toog leen ñu dégg ndigalu euh, chef de village bi xale yëpp toog nañ ñu sarax ñu yaay sëñ bu sekk su fekkee yow bokk nga dara si taraxe sañ Touba maa ngi lay ñaan yàlla ak yonent bi ak jëmm sëñ Touba man sa maam dafa liggéeyee sëñ Modou Moustapha ba sëñ Modou a gërëm ko maa ngi koy ñaan yàlla si daraja sëñ Touba na teggi tànkam delluwaat ginnaaw. 1995 laa sañ ci tool bi jëmbat koy mango. 95 boo si génnee boo si génnee juróomi at 25 ans la mu commencé witt mango yi dama ko ni ma ko débatee woon damay jël ba par partie bu ma jëmbatee partie bi ba mu rëcc ma bu déwén jii ma ma ma li fi naat jëmbataan ban partie gas fa ñaar teeni ciment. tey lan moo xew ci foofu noonu. li fi daw dama xëy ñëw xëy si fa def sama gàncax di ko roose kenn waxuma kenn di fa dama xëy ñëw ñu ñëw andi daan ni commencé daaneel ma toog ci biir tool bi ñu commencé di daaneel. di daaneel di daaneel ba ba ak si man booba sax jaxasoo naa jour keroog barki xalifa bu xaru xaru bu xaru daa ko naan dinaa xaru mu xalaataat sama bopp bu ma xaroo dam bu ma bu ma xaroo xaru xaru daganul ma maîtriser génn dem waaye alal ji man maa ko moom di si ñàkk bo si laa doon tedd maa ngay moom a yoroon ni ma ko waxee encore sag bu ma jaayee meññeefu mango yi sag sag sag tabaski bu ñu bu ma jaayee damay génne trois cent mille pour sama période tabaski teg ko fële li si des mooy def ko sama njaboot waaw. gàncax gañ fa yàq si laa daan dund sama dund xalaatuma woon leen di ci def sama lépp. tey jii daaneel leen ko. daal damay xëy tëdd te sama njaboot màggagul sama njaboot màgg xale ndaw laa yor te kenn musul ñëw ni ma nangam. joxuñu loon sax avertissement barki Xalifa kenn mos sa ñëw wax ma ni ma sa tool bi nangam wala ni nangam. dañu xëy rek ñëw daaneel ba fii may wax yow kenn waxuma ci dara waaw. ah ñaan nag président bu fekkente bi moom moom moom nit ñi la fi nekkal nañu geestu xool ne xam ne lii du dëgg du yoon te bañ fi nekkee ba léegi maire mosu fee jaar ni ñu nangam ak nangam muñ jañ jóob mosu fee jaar ni ñu nangam ak nangam seen tool yi waaw mosu wax leen nu may nekk mbaam mi loolu di wax di wax waxam te ñun mosuñoo wateel ku dul moom waaw te moo moo ko tracé def ndul kaas lépp moo ko def mbal na ku ma déggal ci mbéy bu fekkee delloowuñu suñu alal ji benn karte laa wax man ku sant fii dootu du ko fi am barke xalifa laa wax wasalaam